Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa barakaatu mbokk yi maa ngi nuyu wax di ziar di tay rek ci benn secret bu am solo bo xamne ci walu digënté lay dox suma waxé nak digënté moy farata nga am sa jëkkeer wala sa jabar wala nga bëgg tak nit wala nga bëgg sey nit nga gis ne dafa am ay jafé jafé té lu si gëna bëri ci aduna bi ñu dund nit ñi dañuy yaq digënté yi dégg nga xam ñu juk yaq ci lamagne wala ñu yaq ci seen loxo dem ci ay mamane kon eh, mo tax ñu leen di dimbali di leen jox ay secret yoo xam ne da ngeen di mën di ñàkk seen diggante yi di gën a rataxal seen diggante yi moo xam sëy la moo xam ñi nga xam dañoo bëggante te bëgg sëy condition yi dama leen ko wax toujours mooy secret yi ma leen di jox du ay caaxaan da leen ko def si anam bu rafet te neex yàlla bu leen ko defee si bi caaxaan mukk secret bu am solo la bu yéeme yéeme incha allah rabbi eh, pour ñi nga xam ne dañuy bëgg istixaara numéro baa ngi noonu di affiché ci écran bi ñi nga xam ne dañoo bëgg di seetlu seen ay mbir wala bu dee sëy la wala wàllu diggante la wala wàllu tukki la wala wàllu diggee la ndax du doomi aadama loolu dafa gën ci moom comme ni ngay seetee sa yaram dem ci médecin yi ñu seeta la nu nga war a xoolee sa jëmm xool li la tënk xool jafe-jafe yi ngay dund la moo ko war waral problème yi nga nekk la moo ko war a li nga bëgg a def lépp loo bëgg dugg da ko war a seetlu ak lu mënti doon si àddina ndaxte loolu moo la mën a wan yoon bi yoon bu si mën a jaar bu fekkee ne am na lu si nekk mu wan lu ko bu fekkee ne am na ay sarax wala ay ñaan yoo mën a def tam mu tegtal la ko loolu mooy istixaara dégg nga te nekkut lu lu lu xaram lu baax la loo xam ne doomu aadama bu nekk war na ko war a mën a def boo demee si tubaab bi sax dañu koy def moom la ñuy tuddee consultation kon tey incha allah rabbi secret boobu laa leen fas yéene jox mu jëm si wàllu géomatie euh, muy secret bu am solo boo xam ne dañ koy boolee ak tamaate waaw sama mbokk saareen saareen bi nag nekkul tomate bi ñuy lekk tomate bi moom kenn du ko lekk dégg ngeen eh, incha allah eh, li ngeen war a def mooy li ngeen gis nii moom ngeen di bind nii rek ngeen koy bindee soo ko bindee nii ba pare danga koy bind ba muy ñeenti yoon si ñeenti kayit nga koy bind rond boobu nekk si digg bi si rond boobu yow bindal sa tur si kaw yow mi bëgg na sa tur nekk si kaw ki nga bëgg turam nekk si suuf soo paree nga eh, bunt bu ma bàyyi noonu danga koy fermer danga koy tëj legi da nga koy bind ba muy ñent yoon su ko defee nga ut ñent tamaté bind nga ñent yoon li nga gis ni bind ci tour yi ba paré ut ñent tamaté legi tamaté bu nekk da nga si dugal benn kayit da nga koy lem ba ba nga dugg nga xar tamaté bi dugal ko si biir su ko defee da nga koy utiliser si diiru ñent fan dégg nga si diiru fan boo xëyee suba teel nga jël benn kayit duel si benn tamaate nga jël tamaate bi lakk ko bam xam nga defaat nonu defaat non defaat non ba mat ñent fan dégg nga soo ko defee ba ñent fan yi mat bo xolé ci ay diiru juroom ñaari fan da ngay gis ne ay ko day am yalla day natal seen digënde seen digënde day rattax day neex day am mbëggeel day am jam day am salam te itam day toj day toj ay jafe-jafe fekk dafa am ay liggéey yu nekk seen biir wala ay jafe-jafe yu leen def da kay toj dégg nga kon li secret bu am solo la bo xam ma sha allah Euh, képp koo xam ne yàlla dogal na nga nekk si jafe-jafe yooyu ñu ngi lay déggal nga def ko def ko si anam bu rafet euh, incha allahu rabbi yàlla mi nga xam ne mooy def tawféex di def jàmm yàlla dafa leen jàmm dafa leen tawféex kon yal na yàlla aar ñu sàmm ñu fajo ñu ñëpp suñu bépp aaju si zaar si baatin ñi nga xam ne ñu ngi am ay jafe-jafe moo xam wàllu sëy moo xam lu mënti doon wala wàllu diggante yal na yàlla saafara lépp kon ñu ngi yem fi ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu